أني أفوض أهوالي لمن جسوا أنا لأنفسهم حجز المساكين أو كيف يبعثني حب الغتام إلى جوار من دورهم روض سياتيني إن كنت ذا سن أو كنت ذا وتر دعوت سلعين قبل الراء وسيني وهو المعين الذي لا سيهجسه وهو المكون ما ساء تكويني إن تجيل أمر كان ساجل أو ساتاجله يبتئ إلهيني يا من يلوم فلا تكسر وداسلي إذ لست من فقدتي دنيا بمصولي إن كان عيبي سهل في عتامي فذاك عيب نفيس ليس يزيني سبحان ربك رب العزة وسلام على بسم الله الرحمن الرحيم بركة الذي الوجود والقدم قد وجب لولنا تنمي القدم بركة الذي الوجود والقدم قد وجب لولنا تنمي القدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من خاد لي أمنا بلا مخالفة ملك الذي القيام بالنفس وجب له إلى كلية قاد العجب الحمد لله تعالى وحده كما له قمستي والوهدى لمن له القدرة والإرادة والعلم مع آيات الإبادة لمن له القدرة والإرادة والعلم مع آيات العبادة لمن له القدرة والإرادة والعلم مع آيات العبادة ñoom njabootu sëñ Tuubaa gépp buñ sañoon ba ci sëñ Muntaxa lii nu defoon ñoom ñu def ko ndax Gabon kenn doyu ci sa kenn doyu sa bopp rek kon loolu kàddu la yoo xam ne dama koy leeral rek ñoom njabootu sëñ Tuubaa gépp a ngi suñ mbàkk yu fay itam bi wax naa ko man quinze minutes 16 secondes nuyu leen laaj ma ma wax ko mu ne tele bi nañ teg lépp yóbbante nañ élément yëpp mu dem ma xamal ko ne ko sax ñoom de ñi ngi sant waaye buñ sañoon ku mel ni yow bu déwénee nga waaj mu ne ma bu Cheikh Mbengue ñëwee ñu waxtaan te Cheikh mi xam na mbàkk yu mbàkk yu xam na ko ndax toog nañ jotaay ba mu daaneel ko ci Sëñ Tuubaa moom loolu kàddu la yoo xam ne dama ne woon dinaa ko wax rek kon nu bàyyeeg sëñ Cheikh mu sant mbooloo mi ci ci ni ko mëne bu noppee sëñ Cheikh naa bu so sant mbokkam yi ko ñëwaloon noppee sëriñ bi daal di eh, nu ko bëggee rek bisimilah sëñ Cheikh asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ bi ngi nuyoo bu baax a baax di siyaar bëgg rek jot lim nuyoo ak siyaar ci mbooloo mi ñu àndaloon di liggéey ba liggéey bi sont agsi fii euh, ngeen war a dellu ci Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ni moo santaane woon liggéey bi euh, ci turu sëñ Touba muy liggéey boo xam ne suñ borom taw feexale na ko sëñ Mountakha ndax euh, ba sëñ bi jógee fii ak léegi téeméeri at ak fanweer bu dee 1902 ak léegi daanaka lu ci manque du bari léegi nag kon su yàlla dogalee léegi la liggéey bi door ubbiku seen ñëw giit moo dëppoo ak ñu ñuy won pàkk ni ñu fi yéen ko moom ca ba bu ko defee kon ñu ngi am ak cant waaye nag di yóbbante ci sëñ bi rek ndax mbooloo mi nga xam ne moom lañu àndal di liggéey mbooloom pas-pas lañ waaye du mbooloo moo xam ne karte na leen boole sabab bi yàlla dogal na ñu ci bari yàgg nañu ak sëñ bu Bousso am na ci ñoo xam ay ndaw lañ sax jom fii lañ juddoo far am na ci ñoo xam ne seeni waajur lañ fa indi waaye booy seet du mbooloo mu bari waaye nag pas-pas bi ci seen biir moom moom dëgër na ndax sëñ bu Bousso yàlla dogal na dañu woon daa sàkkoo dajale ay boroomi pas-pas ngir ñu ànd liggéeyal sëñ Touba liggéey boo xam ne ah, nu fondement sëñ Touba loo xam ne ku ñëwati rek loo indi mën ko cee teg te yaakaar naa ne kuy wut ay kayit ba li ngay def maanaam ci réewum jàmbur nga sañ koo def wut suuf ba lu nit amati man ko caa tek yaakaar naa ne bu leen ci ab fondement it loola ma nga yéggi ay jéego bu ko defee commission yi nga xam ne ñoom ñoo daje fii euh, ñi may njëkke sax mooy ñi doon togg-togg muy commission cuisine ndax ñoom euh, yaakaar naa ni ñoom liggéey bi seen liggéey moo ci gën a jafe ñoom dañoo jiitu jumaa yomb ay fan yoo xam fa lañ nekk maanaam euh, lépp rek ñu di ko waajal ngir nit ñi bu ñëwee ñu teggil leen ay xat-xat ak tumuranke waaye am na commission boo xam nag ñoom logistique ak culture ñoo ko composé woon ñoom muy ñoom sañ Alaaji Bey nga xam ne lu fa doon baas wala mu doon fa ba ci ba ci ay kii ndox ma ci boppam ak lu fay def électricité ak lépp ñoom ñoo jiitu dañoo yóbbu plombier yóbbu ay électricien gépp ñu dem defar barab boobee te yaakaar naan buñ fa jaaratee déwén lay doon ko defee ñooñu tamit maanaam ñi ngi ngi seere maanaam jëf joojee ñu jëf te sëñ rek tax ba ba ci nag ñi nga xam ne commission finance lañ nekkoon nga xam dañuy wër di dajale addiye ndax mbooloo mi amul kees goo xam ne dañ ko yor goo xam benn dërëm fanaan na ci bu jamoon ci maayam ba wala feneen am na jëm ju ñëw ni yéen euh, da ngeen a bëgg a màggal sëñ Tuubaa màggal gu estimé ci nangam million ana seen budget ma ne ko ñun amuñu budget mu ni kon yéen mënu leen a màggal ku bëgg woote loo xam ne lu mu gàtt-gàtt oto yi ca nit ñi rek doon ay millions te yéen yoru leen benn dërëm ma ne ko suñ budget nag moom mooy li ci poosi murid yi ci maanaam ci lañ fa yéenee laaj ñu am ak doogu def ko ci ngir sëñ Touba waaye ku xool fii mu mujjee tamit di nga gis koo xam ne ba ngay tënk tënkaale woo ko woon tam def ci alalam ba ci waa réew mi bu ko defee nag kon commission yooyu nga xam dañ doon dox ci finance ñi ngi leen di sant ñun tamit xam na ni daanaka daaw bañ màggalee ba ci ëllëg sa màggal ga ñun lañ jóge woon fii nekk diggante Sénégal ak Amérique waaye ñi fi des ci commission bi nga xam ne ñoom ñoo doon liggéey ci administration ànd ko ak soxna si mi ñu jóge këram ñoom sëñ Badara seen ñi ak ñooñu liggéey nañ ci liggéey bu yaatoo yaatoo yaatu du kenn du ñaar du ñett ñoom ñëpp ñoo ànd def ci liggéey def ay réunion ak ministère de mbi yu bëree bari ba loolu sabab mu jóge fii dem Sénégal loolu tamit mu doon liggéey bu yaatu bu am solo euh, bu ko defee sëñ Kalaam mi nga xam ne tamit moom xaj na li mu doon def sax xawoon na ci wet te doon na def liggéey bu yaatu boo xam ne mhm. benn bi daa jëm ci luy fexe ba nit ñi ñëw fi waaye Touba tamit bi sëñ Mountakha nee dañ koy yaatal tam ànd ak sëñ Seexu naa loolu lépp moom moo doon daw Dakar ak dikk di yor oto bi di transporter fu ñu war a dem ñu di fa ànd di fa dem ba loolu wet googa tamit mën a réaliser wu. am na ci lenn loo xam ne luñ liggéey foofu loo loo xam ne xam naan bu déwénee lañ koy xam ndax am na documentaire yoo xam borom xam-xam yoon yëpp boole nañ leen ci dem nañ université Touba seeti Cheikh Amadou Badawi ngir fexe ba université Gabon yi ak bu Touba mën a likkaloo borom xam-xam ne foofa ñëw di animer ay conférence ci université yi Gabon yi wet yëpp lal nañ ko yoo xam ne woo nañu nag boroom xam-xam yi ne ci yoon wi yëpp ngir ñoom ñu ñëw ndax ñun am na njuumte yoo xam bu ñu ko defee njuumte yooyu duñ kenn duñu ko mën a kenn du ñu ko mën a bàyyee ndax dañuy taxaw ca kaw woote mel ni ku nodd ni ñëw leen julli si ñi julli si bu ñëwee ñoom ñoo doon imaam ñun ñun woote woote lan ban bu ñu loolee nag moo tax ñoom sëñ Baye Dame Mbaye mii mën a ñëw ñoom sëñ Abib bi ñi mii ñëw sëñ Amadou Tidiane Touba ñaan ak ñoo ñëpp ñi fi dikk Ahmadou Mbacké seen loolu nga xam ni dikke nañ ko muy xam-xam te sëñ tubaa euh, ñoom ñëpp moom lañ ko mën a liggéeyee ba mën a jariñ dara maa ngi fàttaliku sëñ Moussa Lo daan wax ni bu ngeen dul daje man ma leen di waxtaan ci man man laay liggéeyal man lan laay mën a liggéeyal sëñ Touba ndax man mënumaa bay du ma teyal mënumaa gor yéen ngeen ñëw toog ci man ma di leen waxtaan ci sëñ tubaa rek loolu laay mën a liggéeyee kon ku tax toog sama kanam du yaa ma war a jox waaye man maa la war a fay ngir ma mën a liggéeyal sëñ Touba Euh, soxna màggat soxna mbaay yéen ñi nga xam da ngeen nekkoon ci waañ wi na ngeen jottali ci mboolem jigéen ñëpp cant gi ñuy biral tam jëm ci sëñ bi ak mbooleem jigéen ñi gaboon nag ñoo ci bokk góor ñu tamit ñoom ñëpp ñoo ci bokk ni ngeen bootoo ci soxna maam asta du yëg ni soxna jaara néew fi na ngeen doon def ak moom rek ngeen def ak moom ba tey jii ñuy ñaane di tàggoo soxna jaara musta génn waañ musta lépp lu ñuy def ku laxasaay du liggéeyal boppam la kenn mus koo defal dara lu muy def da ngeen di ànd ko def ba ci nii ñu wane ginnaaw waaye nag liggéey moom ku wàcc da ngay dem dallu ci ku wàcc da ngay dem dallu ji sëñ Fallou mi it bu fekkee mennum jëmmam moom moo fi newoon bi mu fi njëkkee ñëw 1969 la ñëwoon Gabon 69 du tey 69 ba mu fa ñëwee soxna jaare 1974 la ko sëñ soxna may galas jëkk indi fii kon loolu def naa ni yàgg nañ fi kon nag lañ fi doon jëf ba ba tey jii loolee bu ñuy dem bawuñu ko fi moom bawuñu fi seen jëf waaye jumtuwaay yaa ngi fi nag ku am pas-pasub liggéey danga liggéey te it euh, euh, nuñ koy waxati mbokki taalibe yi fi nekk ñoom ñëpp ak it nag ñu toogu ci jataay bi sax ak ñi nga xam ni doon nga wax ay jéegoy bennoo ak ànd liggéey sëñ Tuubaa na ko waxee woon mooy yoon wi te loolu lañ fa yéene def maanaam lañ fa yéene def lañ fa yéene def mooy ab taalibe daa moomul boppam ba ba ñu jox ko mu xalaat ba nangu ko wala mu neex ko mu dool koo def ak taalibe tënkowul noonu ak taalibe ni mu tënkoo dañ naan la defal lii nga def ko bu ko defee loola sëñ moo damante nee na ku ñuy digal ngay dégg dootoo juum ndax ka digal moom dala dul wax ci bakkanam bu ko defee nag kon kàddu yi sëñ Seex Xadim Fall yëkkati muy kaddu yoo xam ne day tax ab taalibe delloowaat boppam ci biirub taalibe loolu ñi nekk suñ mbooloo te tooguñu woon ca jataay boobee wéet nañ fa waaye nañ xam ni ñun ñii ñëpp ca loolu lañ fas yéene ànd mooy maslaa ànd fekk suñu mbokki taalibe tey jii bi ngeen fi ñëwee ñu deen daal ci hôtel bu këruk sëñ Tuubaa Géeja Glace noppi woon fa lañ leen di dalal ndax yéen ko moom kon nag ñun ñu ne ci dëkk bi ñëpp ñoo war a àndandoo fab suñu laxasa teg ko suñu digg bu dimanche ñuy dem di ca def luñ am ànd ko ak suñ mbokki taalibe kenn ku ne am na loo mën a liggéey yor ko mu yaatu lool nga def ca lañ ca war def ba am ca ngërëmu sëñ Tuubaa te ñu xam ni coo moom jeex na fi waaw li fi war a des daal mooy li sëñ bi digal mooy benn la suñu bopp te liggéey te ñun lay jariñ man mii nag nga xam ne ku dem ba laq xanaa ci gabon gi nangami at suñ am suppi na jamono Seex Ibra ne woon na wàcc amu fi waaye suppiwu liggéeyan am na fi kon léegi dañuy dem ak ñëw bu ko defee nag kon ñu xam ni bugguñoo sos coow wala ñuy wala ñuy def loo xam ne dina tax dina tax kenn ku ne di jaar sa yoonu bopp soxna maam Isa ñu ngi lay sant bu baax wii yoon njëkkut sa yoon la ngay jëf ci tuubaa di ko jëf ci euh, ca Mauritanie Sarsara ngay ñëw di ko defante ak ñun fii ak Amérique kafe gi kenn ku ne xam ne ni addina bépp a nga koy naan te la ko la ko wax mat ba yóbbu ko ci ñoom ñëpp say jéegoo ngi ci bu ko defee ñu ngi sant bu baax a baax ci barkeb sëñ Massamba suñ borom lim la cëral mu saxal cër bi te boole ci ak wér ci barkeb Seexul Xaddim euh, soxna Aminta gay maanaam mooy mag ñi nga xam ne ñoom naka jekk moo soxna Aminta jaag dañ doon taxaw soxna jaar ci bët yëpp te ñu ngi fi ñoom bàyyiwuñ ba tey xañ na kàddu yi daal daa doonoon kàddu yoo xam ne daa jëm ci mbooloo mi yëpp muy seeni cant waaye nag di sàkku ñaan nag waaw ba nga xam ni ñi nga xam ne xaw na ñoo mage waaw ñi nga xam ni xaw na ñoo mage te bëgg a jege Sénégal tey dama ko ñëw ñu am lañu fa tooge ñi fi nekk te doon ay ndaw ñu am kartan ba li ñuy jëf ci dëkk bi ñu maanaam ñu man ko bu baax a baax soxna yi dañuy yëngu yëpp it suñu borom def ci barke jubale leen ak seeni boroom kër te def barke ci seenu njaboot ah ngi sant ñëpp bu baax a baax a baax mboolem ku ci jàpp ci lu jige wala nga jàpp ci ci lu sori na la leer ni maanaam ñi ngi lay sant ña ñu jàppale ca Sénégal te te xañ na tooguñ ci bi ñoom soxna Batoor ak soxna Seyni bu Njëgan ak ñu ci nekk ñëpp te xam dañoo féete Sénégal ñoom ñëpp it bokk nañ ci gi. ah soxna Moussi moom soxna Moussi moom xam naa ni moog sëñ Seex sëñ Seex Mbàkke tudd leen waaye ah, xam naa ab Baay Faal moom ku ko bëgg ku ko bëgg def loo jëf ju matit day xaw a jafe ñun buñ juumee rek ngeen jubanti loolu waaw bu ko defee kon soxna Moussi ñu ngi koy sant bu wér a wér waaye sëñ Cheikh Mbacke tamit moom ñu ngi koy sant ak sëñ Cheikh fay mais ak mbooloo mi fi nekk ñëpp waaw soxna Astou waa wax nga dëgg soxna Astou Gawane bu ko defee kon ba ñuy soxna Astou Gawane ba ñuy def édition national boole wuñ ci ñenn moom la ñëwoon moom édition bi dañ koy def ci Gabon yemale ko ci biir mu jong moom ñoo bokk ànd fanaani Mayumba waaw ba ba nii nii su ko defee nag xam naa damay daanale ci daal presse bi nga xam ne nag muy sañ xaadim mii ak sëñ Mourtala Gaye dagg seen yitte xam nañ ni mbooloo mi amuñ lu leen di jox dañoo ñëw ngir sañ Touba dañoo ñëw di fi sonn ngir mu ngir ngir mu jàkk mook suñu mbokk jànkati xasida yi nga xam ne yemuñu ci ànd ak ñun fii waaye Sénégal sax suñ fay def dara sëñ boole mi day dem Joal ak fu ne la ñuy ànd ngir di yëgal murid yi di ñu def rek ngir mu ngir mu gën a sotti Mohamed Fasso on vous remercie au nom du khalife vraiment moom it dem na Sénégal dem na Touba xam na fii conseil la woon ci Ali Bongo à la présidence tudde na doom sëñ Fall Bousso yoo xam mag la fàlloo ngi fii toog bu ko defee kon loolu daal mooy kàddu yi nga xam sëñ Mamoor bëggoon nañ ko tënk bu ko defee bu sëñ sax naa jot lay kàddu buñ sëñ bi ñaanale man daa mel sax waxuma nag sama sëriñ sëñ sax Xaadim war naa la ne mën a seede seen liggéey ak seen pasteef sa kanam ñoom kat ngor ak wóllëre ak Serigne Touba moo leen boole woon sëñ Sia wax na ko léegi sëñ Fall daa waxoon ne borome pas-pas laa soxla ñu wuute dajoo fii ci kanam te kenn ku nekk ci ñoom njëkk loolu am nga sab sëriñ booy xole sëriñ bi waaye loolu day war na rek fañ nekk seen bunt yooyee defar nañ leen ba ñoom fu ñu gis sëriñ Touba rek nekk fa ñooy ay gor bi sëñ bi nelaweeg léegi liggéey bi laal suuf seen alal seen coona seen xalaat seen lépp ñu jëmee ko ci liggéey bi nga xam ne mu liggéey Sëñ Tuubaa ngir mu jëm kanam kon nag ñoom damay njëkk sàkku ñaan te ko sàkku ci sëriñ bi mu ñaanal leen suñu borom nangu seen liggéey dinaa ci tudd sëñ Seex mi rek mu yóbbaale ñëpp ndax bañ a man guddal ci wane kóllëre ak nañ jàppe sëriñ bi ngir sëñ Tuubaa sëñ Seex mi toog ba demee sama kër dooma ma nga fa tudd na sëñ Fallu itam doom ñu bari fi mbooloo mi tamit seen turndoo tudd na ko ngir kóllëre ak sëñ loolu nag dana jaadu ñu sàkku ci ñoom nga ñaana leen ba liggéey bii ñett yii ñu mucc ci seytaane àdduna daraja ba dara du ko rax loolu jëmmi sëriñ bi mu sell tey am ci ngërëm Sëriñ Tuubaa loolu ñoo ngi koy ñoo ngi koy sàkku man dama leen ñaanal waxtu bu nekk ndax képp ku liggéey Sëriñ Tuubaa ak foo man nekk rek war a gora ñu ñaanal la rawaate nag ñoo bokk di liggéeyal Serigne Touba ci liggéey bi nga xam ne fii la Serigne Touba doon liggéeyale suñu boroom at yu baree baree bare muy ab cër boo xam ne xëy na ku ci yàlla boole rek tawféex la jàmbaar amut waaye ku dimbali am kon loolu dama ko doon njëkke ngir sàkku leen ñaan ak mbooloo mi yëpp di jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nga xam ne jamono yëpp ñu ngi fi ànd ak ñun liggéey bi si si Xadim Fall mi ngi toog ñu jël bisu maam Serap féetale ko ko mu yëg ko am ci ay taxawaay yu am solo ay kàddu yu soññee ay jëf yu matale lépp di wane aw yoon ci jataay yu bari saa yuñ toogee mu ñëw ngir lii kon war nañu ko amal cant ak ngërëm sëriñ Fàllilu Mbàkke mii toog di doomi Baay Tubaa Mbàkke mu ngi ni toog bokk ci waxin ma di satub si Mbàkke soxna waaye di satub sëñ sàmba Faati Buso mi nga xam ne doomi sëñ Buso bi la bokk si bokk si Abdu Xaadir ndey ak baay benn waajur di liggéey waa ci xidma moom it lu ko fi indi mooy nga jàpp ci liggéey bi rek suñu Moustapha Bousso mii ngi toog di doomi suñ Mourou Naar di mag ci suñu Aliou di mag ci suñu Fallou mi di doomi suñu Aliou buso suñu Aliou suñu Bousso bi suñu Bousso bi su son jaar bokk ndey ak baay sëñ Cheikh Mbakke di doomi suñu Abdou Assis Baara Mbakke moom moom suñu baara mi ngi toog moom it yàgg naa ànd ci liggéey bi ñëw ni fi sax ci weer yee waay paase dem maa yomba am fay fan hmm. am fay fan bi mu ñëwee léegi daanaka maa ngi koy wax sax ca maa yomba daanaka day tëju rek di jàng di dus xasida day faase wu ci yu bari kon li ko li ñuy teen mooy Sëriñ Tubaa bàyyi sëñ ab busoo nga ne toog di sëtu suñu aafiya buso suñu aafiya buso di doomi suñu buso bi bokk ak son aw buso mu mu suñu fàllu ndey ak baay kon ñi fi ñëw ñëpp war nañu fay ñëw waaye xencu seen liggéey soxna maa ngi seen mbàkke ngi la toog ak soxna asu mbàkke mu suñu sa wàlla karam kon ay bokk yu jigee tuubaa ngir xeeñ su liggéey bi rek ñoo fi daje waaye ñuy bare cant commission bi nga xam ñoo doon saytu wàllu liggéey bi sëñ Ahmadou Mbacke sëñ Fallou Bousso Tamba sëñ Baye Dame Mbaye mii toog di satut Maam Mor Diarra xam-xamam ak njàmbaareem moo tax ñu indi ko ci commission culturelle pour mu liggéey ci am naa yaakaar ne am na ci liggéey yu am solo yu matale yu mu def moom it na jàpp ne waa Caravane bépp ñu ngi koy jaajëfal ci taxawaay yu mel noonu ak mbooleem commission culturelle bi ñu ko bokkaloon bi nekk Gabon te ñoom sëñ Fallou Diouf ak euh, sëñ Alaaji bi nekk ci kon ñoom ñëpp dañ lay seedeel suñu cant ak suñu ngërëm ci ñoom li ma wax nag ci turu karawaan bépp laa ko waxaaleel ay cant la yu jëm ci ñoom di sant bu baax sëñ Mahamadul Muntaxa liggéey bi kat da ci am tafeexu Sëriñ Tuubaa joo xam ne moo ko jagoo sëñ Cheikh wax na ko léegi mm-hmm. li ñu doon topp di ko wut muy suuf ngir mën a wéyal liggéey bi ci jumaa ak ci daara ngir defar doomu aadama yoon wu nekk ñu jaar ci waaye bi mu duggee noppam ñu wax ko mu ñaan ci 2022 lañ fi gëjoon ci caravane bi nii pour mbooloo mi ñëw ñu dem Mayomba ren jii nag ñu defaat ko lépp sotti mu sottee nag ca sa kanam loolu kon ñaan la yoo xam ne su borom nangul na ko ko waaye nga ñëw teg sa bët mu gunge liggéey bi lool nag su waree bind bind na su waree yónnee yónni na def na lépp buñ demee ba toogoo ak njiitu réew mi loolu lépp la ko waral mooy kàddoom ak mbaaxam ngir bëgg liggéey jëm kanam loolu nag ma waral suuf seeg ak li ñu am lépp suñu borom jaaral la ci ak ñaanam ba yàlla fi ñu jot ci kon nag dañ sàkku ci moom ñaan projet bi liggéey bi mu nekk liggéey bi suñ tubaa gërëm te dara bañ ko faktal te dara bañ ko yàq ba ñun ñëpp ñu am ci ngërëm sëñ bi loolu laa sëñ bi ñoo ngi koy sàkku di yóbbante suñu cant ak suñu ñaan ci sëriñ bi dina sant yow mi nga xam ne yaa ndawal sëñ bi ak sëñ Mahamadan mi ci tee gi ci dal gi ci laabir gi ci nite gi ci wàcc sa bopp ba man jaxasoo ñëpp loolu nag ndaw dana am man laa yónnee ndaw waaye nag sant nañ ci ndaw lu mel na yow ndax matal nga lool jotal nga lool kon nag ñoo lay ñaan sëriñ bi yàgg laa yónni rek ci yu mel nii ndax koo xam ne defar ak jubbante rek lay dox guddeeg bëccëg da lay ñaan la suñu boroom yokk sa kattan ba fi nga bëgg a àgg nga fa. maa ngi jégg lu baax. maa ngi guddal gi ndaxte waruñu ndax toogaay bu yàgg bi waaye nag mënuñ laa ñàkk seedeel suñu cant ma Mahmadou mi toog li ma wax ci yow rek mu nekk ci moom wax naa ko ay yoon sax moom ñu bokk toog. ci baax ci dal ci yiw ci lépp mhm. soxna baali moom suñ muntaxaa di doomam di léppam mu teewal ko fi ngir fonk liggéey bii moo tax rek mu yabal ko daaw yónni woon fi ay ndawam ren jii tamit mu ànd koo ñun yónni waat ko moom mii kon nag ñoo ngi ko jaajëfal bu baax di ko sant di ko gërëm ci turu mbooloo bi ñëpp kon daal loolu mooy kàddu yi ñi seq liggéey bi nag ñu xam ne li ñu war mooy lax su waayam bu baax te xam ne liggéey bi lu waay doon defaree nga yokk ko bañ a gees bañ a diglu bañ a xool ndax seytaane moom day tàyyaloo nit kuy liggéey jëm Sëriñ pexeem mooy lu mu ko yàqe kon nag nañ jaajuwaat fas yéene xam ne liggéey bi liggéey Sëriñ Tuubaa la ñu taxaw ci te sellal ko kon sëriñ bi maa ngi jégalu ci kàddu yi. Eh, maanaam guddi incha maanaam kii daa wax ni rek da xam naan Baye Fall bi moom xel mi day am lu ci des sëñ Abibou Mbaye eh, maanaam teew na fi te jàpp na ci liggéey bi te xañ na léeg-léeg booy sañ booy sant mën naa am yoo fàtte waaye defe naa ni ngir mu matti dina jafe ndax maa ngi seen sëñ gi laay topp ñoom ak Seydina Omar Dieng ñu doon ñoo xam ni Euh, ñu ci engagé wu ñëw nañ fa ay yoon bañ tàmbalee ba tey at mu jot mu ñëw day indaale ay doomam ak yëpp ma nga leen toog waaw sëñ Galaye topp sëñ Omar Dieng fii la ne woon mën naa ne mën na sëkk lépp luñ ci war a taxawee ci xel ci yéene ci alal ci kàttan yëpp desaluñ ci dara maanaam ñoom waa kër sëñ Fallou ak waa karawaan bi yëpp ñu ko àndal xam nañ ne bañ jóge di yëngu di ci dox ba nëga ni amatuñ noflaay ci dara lu dul na bis bi na dem maayomba gi ak nekkin ak siyaar ba lépp jag rek kon mel na loolu moo doon seen yitte alhamdulilah sant nañ bu baax a baax a baax leen jot li cantuk sëriñ bi ndax liggéeyub sëñ Tuubaa képp ku ci ne ku ne sëriñ bi jàpp na ne moom nga koy defal sëriñ jàpp na ne moo ko war ànd yow kon nag bu ñu ci taxawee nii xam leen ne xolom sedd na buy rawat na liggéey bii nag maanaam liggéey sëñ Tuubaa yëpp noonu la ko yitteel waaye rawat na liggéey bii nga xam ne liggéeyu Gabon bii nga xam ne hmm. ah lu ci bare bare bare bare bare fii la ko sëriñ bi ame kon loolu doon liggéey boo xam ne ah, njariñul ñëpp la kon bu leen yàlla tawfee xale ngeen féetewoo ko kon am ngeen ab cër bu rëy waaye nag yàlla na suñ boroom may leen kàttan ba mu àgg fu ñu ko foogewutoon loolu loolu lay ñaan ci barkeb Sëñ Tuubaa kon sant nañ ñëpp sant gi moom ni sëñ Cheikh naa def rek sant na ay ganam sant na ñim ko bokkam ñëpp loolu rek lool ñun ñun ñu ngi ci biir loolu hmm. dañuy xam ne daal sëriñ bi daal na ngeen xam ne moom it xolam sedd na buy waaw bu soobee yàlla bu ñu àggee nañ ko leeral li fi gis lépp hmm. ñu ne bi ñëwee fekk nañ fi lu kawe suñ jort ndax yaakaar ma xamoon nañ ne mosuñu fee ñëw tren lañ mas a ñëw waaye daal fekk nañ fi ñu ne lu kawe suñ jort hmm. kon nag yàlla na suñ borom àggale mboolem yéene ji mboolem li ñëpp yéene muy muy bis bii gën a jëm kanam rek ca loola ci amit bu ko bu ko yàlla dogalee ndax buñ xoolee liggéeyub sëñ Tuubaa bii ba mu fi jógee ba nëgëni ba ren jii 2024 di fan di téeméer at ak fanweer ci fanweer téeméer at ak fanweer bi ñu daal di yëkkati barab boobee jox ko sëñ Tuubaa kon bu doon bu doon leneen a mën naa raaf bañ fàtte ko bu yàgg ba ba ku ci xamat dara sax du si am waaye mbirum sëñ Tuubaa ji boppam moom la suñ borom yëkkati barkeel ko barkeel koo xam ne moom jamono yu ne rek day gën a jëm kanam kon bis bii tey firnde la ci maanaam ñun dañoo miin sëñ bi rek ñun taalibe yi dañoo miin mbirum sëñ Tuubaa ba daanaka sax gis lu ñu jaaxal du yomb waaye bis bu set ñu gis lu yéeme luñ mës sa gis waaye lii nag ci la bokk ndax téeméer ak fanweer mel na yëf yi day soog a tàmbaliwaat <laughs> loolu moom loolu moom mbirum mbirum sëriñ bi la kon daal kon daal sant nañ baax a baax a baax a baax sëriñ bi sant nañ ñëpp xolom sedd na guy jërë ngeen jëf jërëjëf euh, sëñ euh, sëñ Baye Dame am na loo xam ni xam naa sëñ bi wax ba pare sax ñu kii waaye li ma la bëgg a wax mooy dafa am kilifa yu wax ne liggéey bu toll nii mu yëfi sëñ Touba lenn li ñu toftale ko ci mag ñi irwaa u nadim lenn li ñu tottale ko ci minanul baaxil xadim lenn li jasaawu sàkkuru naar boobu lenn li sëñ Musaa Ka wax na ko leneen loo xamante ne nii génnagul te nu war ko saytu euh, li tax ñuy wax sax mooy li sëñ bi doon wax keroog ndax waxtaan naa ci ak sëñ Seex Xadim Fall mi ba démb ngeen ut commission boo xamante ne day doon commission ci biir scientifique bi démentir ak di jubbanti mm-hmm. parce que léeg-léeg nit wane loo xam ni xëram ak bëggam ndax fii man ku fi xës ba ñëw jàpp ma ni sax dangaa ñëw pour saboter wala dara xëy na da ngay da ngay demee sa xër ak euh, yu bari daan nga ko dégg te ñu dem ba si Abdou Lahad dimbali ci ndax boo seetloo euh, man man ñi ma dugal ci yoonu mu muy diwaankat yooyu doon wër nga xam ne sama papa mës na maa yónni ngooñ ma jël xaalisu ngooñ ba jox leen ko fi mu ne liñ doon wax ak man li xew comme penkook sow te ñooñu tey ñoo xëcc nit ñi ci yoonu murit mbàkk yu fay mii nee na mës nañ koo daaneel ba mu summi mbubbam jox leen màggalu Tuubaa nga xamante ne daa mujj dem jël beneen simisam dem marché Ocass jaay ko 400 duggum njëmbat wàcc Grand Dakar te loolu dem nañ ba xam ni ñooñu xëcc nañ ba ñu ñëw mais nag bu ñu xëccee nit ñi ba ñu ñëw nag seen classe gi ñoo leen di jàngal ndax yoonu murit ay école ki Maam mën a waxal ba convaincre ko sëñ Mbàkke Abdourahmane mënta wax ak moom mais Mamour kuy xëcc ba mu ñëw nag ba mu xam ba bég ñu ne ko nag ko nag daal di koy jël muy mel ay classe rek ni ni ni ngay kii lu mel noonu nag li tax ma wax ko mooy euh, yu bari am na fi ba àgg na Sénégal wër àddina mais ka ko def sax génn na jéggulu ne xirima taxoon kon loolu du luñ koy kii mais lu mel nii mu gën ñoo mën a xamal daal parce que koo gis ab journaliste la ndax ku ne am nga téléphone ne ku ne sa télé nga yor sa poos kon nag lu mel nii bala moo bala ñoo demati. ñuy info ci biir bu ñuy jàllale publicité bi ñu ne nag képp koo xam ne yaa ngi ñëw dellu déglu commission bi lu ca war a génn ñoom ñoo koy génne di leen ko wax nit ñi di xam taxaw photo woog nag def nii kenn bañu ko nga jël xasida mixé kook moom ne maa yomba laa jëm kenn bañu ko waaye di wax wax boo xam ne kii la loolu ay kilifaa ko wax pour ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel ku ñuy indeeti itam ñu wax ko mu bàyyi xel loolu ndax jamono bii du jamono booba ndax loo def ci téléphone rek mën na dem ay ati at ñoo ngi jéggalu ñëpp asalaamaaleykum kon bàyyi